te li tax mu fegook magam ju baax ji magam ji du wax mukk mu ne ko loo wax la tax loola da koo jige lool ca bëgg ko lool ca di ko diglu loolu nag ca nu kilifteef loolu nag nu koy ñaanal yàlla sama mu yàgg lool ci barkeb sëñ Massamba eh, kon nag ñu wàcce suñu kàddu sëriñ bi yëkkati kaddoom ci bisub sëñ ma Massamba bii di sëriñam ah ñun ñëpp ñu bokk si diglu ko. asalaamaaleykum sëriñ bi ne asalaamaaleykum wa rahmatullah. nee wax ji du gudd. ginnaaw jaar ngeen ndax ne ginnaaw jaar ngeen fa kilifa ga sëñ Moustapha. muy Cheikh Massamba ci ñun. ne muy Cheikh Massamba ci ñun. di soxna Aminta ah ne di soxna euh, soxna ci ñun. ne ñuy déglu ndigalam. ne bu ngeen fa xasee jaar. ne soxlaatul ne muy wax dara. ne lépp mate na ci moom. ne bis bii nag li ko waral mooy bisub sëñ ma ne ne pàkk bii mu ne. mu nee ma. ci buntu bii. bëtul bii fukki mètre. fi laa toog bint gu mag. ne fi laa toog bint mu xëy jàkkam jee ci kër gu mag. julli fa yoor yoor. ne ñëw fii. fi la ko ñëpp yi fekk. néeg mu def la fii. nee néeg bii mu def la woon fii. def na ci aynu raxmati. nee def na fi aynu raxmati. def na ko ci. def na ko ci. jóge fi. jóge fi. wuti Saalum wuti Saalum. fa la xew-xew ba xewe. fa la xew-xew ba xewe. fi lañ ko wàcce fi lañ ko wàccee. waajale ko waajale ko fi. muy pàkk bii nee muy pàkk ñu ko fi ñaanale. kon nag kon nag. la mu nekkoon. nee la mu nekkan. nekk faak sëriñam ba. nekk faak sëriñam ba. nekk caak sëriñam ba. nekk caak sëriñam ba. magam ja ju baax ja. xaadim rasul xaadim rasul. muy wéy nee muy wéy ci ndigalam. nee te du ko tere dara. def ko loxoom nday jooram. def ko loxoom di jooram. lam daan digle rek. lam daan digle rek. nekkoon ca rek. nekkoon ca rek. loolu la ñuy fàttali. fonk salawaatul xams. nee nuy fonk salawaatul xams. fonk weer wi dugg si. nee fonk weer wu tedd wi dugg si. fonk. nee fonk kilifteef. fonk waajur yi. fonk waajur yi. ci ca maandu. rafet. nee di wax rafet. nee di déglu rafet. di seetaan lu rafet. nee di seetaan lu rafet. nan ci sax nee nan ci sax dàq. cey tuub cay tuub. ci jàmm. nee te yéeneen te jàmm. kenn ku ne. kenn ku ne. la nga bëggal sa bopp. nee la nga bëggal sa bopp. ko sa morom. nee nga bëggal ko sa morom. di xool sa ayib bopp. nee di xool sa ayib bopp. bañ a tudd ayib jàmbur. lépp jàppandi. lépp jàppandi. yal nañu ko yàlla defal yal nañu ko yàlla defal. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. dégg ngeen wax ju am solo jooju. sëñ maam Morum sëñ ma Samba yëkkati dégg ngeen ko ci yar beeg tegg na mi ak wane taalibeem gi mu doon wax dëgg yàlla mbakki ñuy ñaan yàlla sa borom yàggal ci sunu kanam ndaxte dégg nga nee nga ba ngeen jógee ci sunu mag ju baax jee rek a ah dëgg-dëgg mu teew fi teew sëñ ma Samba tuwaar fa kal mate ko sëkk foofa rek doyen na waaye nag mbàkke ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi wa nasiri min fidaai la aqtirabi bil aqtirabi ñoo ngi fii toog feggoog Serigne Mamor Mbakke moom ma Massamba di ñaan yàlla sama yàggal ko ci kanam njaboot gi ak magam ju baax ji ci barkeb Serigne Touba barkeb ma Massamba mi ngi nii toog feggoog magam ju baax ji te li tax mu fegoog magam ju baax ji magam ji du wax mukk mu ne ko loo wax la tax loola da koo jige lool ca bëgg ko lool ca di ko diglu loolu nag ca nu kilifteef loolu nag nu koy ñaanal yàlla sama mu yàgg lool ci barkeb Serigne Massamba eh, kon nag ñu wàcce sunu kaddu sëriñ bi yëkkati kàddoom ci bisub sëñ ma Massamba bii di sëriñam ah ñun ñëpp ñu bokk maase diglu ko. asalaamaaleykum sëriñ bi ne asalaamaaleykum wa rahmatulah. nee wax ji du gudd. ndax ginnaaw jaar ngeen kilifa ndax nee ginnaaw jaar ngeen fa kilifa ga sëñ Moustapha. muy Cheikh Massamba ci ñun. nee muy Cheikh ci ñun. di soxna Aminta soxna soxna Amar ci ñun. Ah, nee ñuy déglu ndigalam. ne bu ngeen fa xasee jaar. ne soxlaatul ne muy wax dara. ne lépp mate na ci moom. ne bis bii nag li ko waral mu bisub sëñ ma sàmba ne pàkk bii mu ne. ne ma. ne batul bii fukki meetar. fi laa toog binti gu mag. nee fi laa toog binti gu mag. nee mu xëy jàkkam jee ci kër gu mag ga. julli fa yoor yoor. nee ñëw fii. fi la ko ñëpp yi fekk. néeg bii mu def la woon fii. nee néeg bii mu def la woon fii. def na ci ay nu raxmati. nee def na fi ay nu raxmati. na ko ci. def na ko ci. jóge fi. jóge fi. wuti Saalum. wuti Saalum. fa la xew-xew ba xewe. fa xew-xew ba lañ ko wàccee. fi lañ ko wàccee. waajale ko waajale ko fi. muy pakk bii nee muy pàkk ñu ko fi ñaanale. kon nag kon nag. la mu nekkoon. nee la mu nekkan. nekk fa ak sëriñam ba. nekk fa ak nekk ca ak sëriñam ba. nekk ca magam ju baax ja. xaadim rasul xaadim rasul. muy wéy ci ndigalam. nee muy wéy ci ndigalam. te du ko tere dara. nee ca du ko tere dara. def ko loxoom ndeyjooram. def ko loxoom ndeyjooram. lam daan digle rek. lam daan digle rek. nekkoon ca rek. nekkoon ca rek. loolu la ñuy fàttali. loolu la ñuy fàttali. fonk salawaatul xamsa. nee ñuy fonk salawaatul xamsa. fonk weer wi dugg si. nee fonk weer wu tedd wi dugg si. fonk. kilifteef nee fonk kilifteef. fonk waajur yi. fonk waajur yi. ci maandu. ca maandu. waaw jërëjëf di wax lu rafet. nee di wax lu rafet. déglu lu rafet. nee di déglu rafet. di seetaan rafet. nee di seetaan lu rafet. nan ci sax nee nan ci sax dak tey tuub cay tuub. ci jàmm. nee te yéeneen te jàmm. kenn ku ne. kenn ku ne. la nga bëggal sa bopp. nee la nga bëggal sa bopp. ko sa nee nga bëggal ko sa morom. xool sa nee di xool sa ayib bi bopp. bañ a tudd ayib bi jàmbur. lépp jàpp lépp jàppandi. yàlla na ko yàlla defal yàlla na ko yàlla defal. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. dégg ngeen wax ju am solo jooju sëñ maam morum sëñ ma sàmba yëkkati dégg ngeen ko ci yar beeg tegg na mi